برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بوقي سيدان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ماني يعني لوكل أمة الإسلامية دين لوكل بولم جلدني شي ويرو ماتوي رقمنا شي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلد نقمنا تكتك تقول نقول فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم إمام بصير نقول نقول تسا تبيو يونس صلى الله عليه وسلم تلي على ساكي أدنى تبيو يونس تلي على على آخرة تسا قم قم قلم القدرة تلي بند تلوح المحفوظ كن يلا مينغي فينال يونس صلى الله عليه وسلم تفكي فان أجنار تبير ربيع الأول waaye ñi am mos ci yonantu bi sallallahu alayhi wa xam nañ ne leeram la yàlla njëkk a bind moo di Cheikh Ibrahim di junju nuuruhu awalul wujudi wujudan fa huwa aslul wal anjaali mu ne leer yonantu sallallahu alayhi wa sallam mooy am gi yàlla njëkk a kon yàlla lépp lum amal wala lum nam ma amal ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko sàkkee moom moo tax mu bind lu mu bind yonent bi moo tax mu daan yónni yonent yi pour ñu xam ne am na lu ñuy wax yonent ndax bu ñëwee lu bette te bépp yonent bu mu daan yónni dana ko wax ne ko su ma la yónnee nga nekk sa biir message Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñëw da bàyyi li ngay def nga dimbale ko mune dana bàyyi limay def ma dimbale ko yàlla jël sen cédé ba pare cédé mom yàlla ak ñom motax bimu bi yàlla yónni waatu benen yonent ndax mom mo ubbi yonent gi waye mom moo tëj sallallahu taala alayhi wasallam Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu daf ñi wax ci ay waxam ne fashtaghilu bi ta'dhim an nabi sallallahu alayhi wasallam بكثرة أمداحه بكثرة الصلاة عليه وأمداحه وبذل المال فيه ولا يرى عمل أفضل منه كما أراني الله من نين سخو دي ماغل يونت صلى الله عليه وسلم دكتي تي دي julli صلى الله عليه وسلم wa sallam lu bëri te di ko te di dundale ci moom lu bari bàyyi mu ne gisuma liggéey bu gën a màgg bii gisuma liggéey bu gën bi comme ni ma ko yàlla wonee te yàlla won na ko lu bari ndax kat xasani bil ilmi wa tasrifi in qultu kun yakun bila tasrifi yàlla jagleel na ko ci xam-xam ak ci soppandiku ci mbir yi lépp lu mu ne xamal loolu xam kon kooku am na lu bari moo xam ne yàlla won na ko waaye bu gàmmu jotaan dañuy gis ni koy waajalee tukkeem lu mu sori sori sori te tukkikat bu mag la woon weeru gàmmu mësta teru lu dul ne fekk na ko mu dellusiwaat fii ci Medina xam-xamam lu mu bëri bëri te lu bëri xam ku bëri xam-xam la waaye lim daan tuur ci weeru gàmmu tuur ko ci beneen weer bu dul weeru gàmmu ay tàggam yonent sallallahu alayhi wa sallam guddi ak bëccëg loolu moo nekkoon liggéeyam ndax thaqafatu ibrahima wal ilmu kulluhu madixul imam al yi fàttali culture yu Cheikh ak xam-xamam yëpp li mu koy doyee rek mooy di tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak di wax ay ngëneelam waaye ni mu ko daan taggee ci yonent bi ni mu ko daan taggee ci weer yonent bi niru wut ni mu koy taggee ci yeneen weer yu du wut weer yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni doon tabee te ku tabe woon la ndax du téye dara dégg nañ ko mu ne نصلي كما كان النبي نصلي نصوم كذا نقفو سبيل السمدع وننفق لا نبقي نريد صراطه نحج كحج الهاشمي المتبعي وننفق لا نبقي نريد صراطه نحج كحج الهاشمي المتبعي نكرر حقا لا اله سوى الذي له الخلق والامر العظيم متمنع ni yonentu daan jullee la ñuy jullee ni mu daan ooree la ñuy ooree ni daan ajee la ñuy ni ba duñ dara wanun fiqu laa nutqi dañuy dundale ba duñ des dara kon kooku lépp lu mu amaan daf koy joxe waaye ci weeru juddu yonent sallallahu alayhi wa da doon gën a nekk ku tam bàyyi moomu dafa ñëw pour ji mbëggeel yonent bi sallallahu alayhi wa ci xol jaam ndax mbëggeel yonent bi sallallahu alayhi dafa nekk loo xam ne képp ku ko yàlla wërsëgal texe nga ci àddina texe nga ëllëg ci àllaaxira yonent sallallahu alayhi wasallam dafa amoon benn saxaabi boo xam ne daf daan def rek bu léeg-léegee mu ñëw taxaw bunt kër yonentu di koy yëndu xool bànneeku ba xolam sedd mu dem bés yonentu ne ko waa li ngay def nii lan la mu ne ko ah man kat damaa xam ne léegi tey day jot bu àllaaxira ñëwee mën naa am nga nekkee bu aljanna jotee mën naa am nga nekkee ci taax yoo xam ne man du ma yegg ma ne woon kon naa nekk di lay xool di bànneexu ci yow ndax foofu mën naa am du mën a gis yonent sallallahu alayhi wa sallam ne ko al mar'u ma'a man ahab nit ak kam bëgg ñoom ñooy dëkk kon bëggeel googu la ñëw pour jikoo ci xol jaam yi bëggeel ci la bàyyi dugg ci la bàyyi ci la nekkoon moom it ba yonent nekkee rek di yonent dara wéttaliwu ko bàyyi tamit dafa nekkoon di bàyyi bëgg yonent bi wa sallam باباي موني ألقت به والناس في سنة الكرام تمتعت منه الدهر إذ كنت مفردا وزحمت في هذا الزمان وإنني لفي غيرة ممن يروم محمدا ولكنني جليت قبل سباقين وقد نرت تبليس القبول لأحمد من بما يبقى يونس صلى الله عليه وسلم نتني نيجي تدقل تقمنتو أغنرم كنا خمنا ني يونس صلى الله عليه وسلم نينا nekkoon naa yónnante xam ne yónnante laa te boobu aadama mi ngi ci diggante ban ak ndox kuntu nabiyan aliman bi nubuwati wa aadama bayna almaa'i wa tin sidni cheikh radiallahu anhu cheikh tijani xatmil wilaya mu ne kuntu waliyan aliman bi wilayati wa aadamu bayna almaa'i wa tin nekkoon naa wàlliw xam ne wàlliw laa te boobu aadama mi ngi ci diggante ban ak ndox bàyyi ne ulliqtu bihi wannaasu fi sinatin momit mi ngi wone ne ba mi bëgg yoon alayhi wasallam nit ñi ñu ngi ci ke gëmëntu ak nelaw xam sàkk buñ leen te ma taatu min wu dahra is kuntu mufrada ma banexu ci mom diit bu yagg bo xamne man bàyyi rek ma nekkoon di banexu ci yoon tu sallallahu alayhi Wasallam, moy dañuy da ngay junj feneen inna nii qablal balaya xubbu soxlil jinaan hmm. Balaya la sàkk dara man bëgg yoon tu sallallahu alayhi Wasallam mo moo ci man من وزوحمت في هذا الزمان وانني لفي غيرة ممن يروم محمدا من بن جوغي تي عالم بوبو نيو تي عالم بي نيت ني نيغي خيتيو اك مان بغيل يونت بي صلى الله عليه وسلم ولكنني جليت قبل سباقي من داي كفير لا تي كو بوغا خيتيو مان سما بلاص بو باي دا فا بوغ يونت صلى الله عليه وسلم دا فا بوغ نييب بوغ يونت بي صلى الله عليه وسلم mais moom makaana ba mu am ca mbëggeel yoon sallallahu alayhi boobu la wax ne dafa fiir ci ku bugg ko bugg a xëccoo ak moom ne nag waaye sax nañ koo xëccoo ak man buñ demee ba koy xëccoo bu dee ne course la boo xam ne arbitre bi dafa war a taxaw pour seet kan moo raw man balaa muy sifle sax man fekk na àgg naa fañ war a jëm ci bëgg yonent bi raw naa keneen ku dul man ci bëggee yonent bi sallallahu alayhi dafa am ay topp fu ne ci àddina international te lim am daf koo séddoo ak toppam moom du wut sëriñ boo xam ne moom rek moom mooy nekk ndax gis nañ ñu ooye ko cheikhul islam ci réewi arab yi waaye moom ci biir toppam yi am na bés muy def conférence fii wala jotaay ci école arabe bi keroog ba muy tudd Baye Amadou Thiam cheikhul islam la ko tuddee mooy ne lim doon bugg na taalibe bi yëpp nekk tënkut benn taalibe ndax gis nañ ne dana wax ci waxam sama taalibe warta taxaw xata ila laxiqa bi wa ashkala alaya xaalu fala yaxal ila cheikhin ala na na dox rek bu mu taxaw mukk bu doxee sax ba agsi ci man ba sama ba mbiram ma man mu bugg a xam loo xam ne mënuma ko koo xamal war naa mën a dem nag ci beneen sëriñ boo xam ne moo ma ëpp ma xaama loolu amut waaye daf lay wan ne la na nga góorgóorlu booboo taxaw mhm. léegi nag ñu ne ko ndax xusuuse bii nga am ci bëggeel yooyu sallallahu alayhi wa sallam baraw mhm. ci yëpp pour yow rek la wala ndax sa topp tamit am nañ loolu mu ne sama topp am nañ ñu ne ko naka mu ne te sama rijaalun bil xadimi wa innani usaajiluhum la antani wa usaabi usaabiquhum ma ishtu fiika wa in amut usaajiluhum faqi wa fiika usaabi mu ne am na ñu tuddee seen bopp ne ñoom ñooy bëgg nekk yoonu sallallahu alayhi wa sallam du ma dëñ di rawanteeg ñoom te du ma dëñ di jël pay ci rawante boobu féeg maa ngi tudd su ma dee sama topp sama njaboot samay taalibe dañuy continuer rawante boobu te ñoom it dañuy raw keneen ku dul ñoom ci mbëggeel yoonu sallallahu alayhi wa sallam mbëggeel googu balaa yàlla di amal lenn inna ni qablal baraaya mm. dafa nekkoon ci bàyyi li bàyyi dund yépp bëggeel googu noonu moo nekkoon ci foo hmm. fa huwa akli wa sharaab yi wa huwa bay yi wa huwa tijaar léppam yonent bi salallahu hmm. waaye bu dee tamit dafay tekki waat ci xabroom di bëgg yonent bi ba keroog ba muy moom ndax moo ne matan sarafal waaruuna hmm. an def ni jussati baqiitu bihi ahya li yowmi liqaa yi mu ne ñi may denc buñ suulee ba ne pare nañoo yaay damay tekki waat di bëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba keroog may daje bëggeel kooku nag daf cee am makaana boo xam ne keneen ku dul moom xentu wut barab boobu noonu ndax lim am yépp comme ni nga ko waxee léegi ci béykat bi ci mbëggeel googu noonu la ko jëlee wasulu jami il masikina bi xabliya te xaqaqahu man lam yukaddib xàgg képp koo xam ne dafa jàpp ci sama yoon wi ñëw jébbalu ci man ak àggam ci yàlla bu garanti la mu yéex ak mu gaaw képp ku fenloowul boromam dana dëggal ne man bàyyi ku jàpp ci man rek wàccoo yoon wi danaa leen ne yaa sa borom te wax na feneen ne bi zahir shar'i wa nuuril mubiini wa rabbi salikina bila këddin wala riya bi ci sharia ku leer nañ ak ci leer ku bit man ñi may tagat ben ne leen yéen a ngi seen borom ngi nii lay aw mu ne wa jëw fa fil fil lam turam faqat qasura al attaabu an tarki sharia dag yi may dag àllay tunga ci geejju ma'rifatu billahi mu ne nit sakku ko te ñun xam nañ ne doomu aadama lépp lum xam wala mu dégg ko rek bëgg na ko sàkku bàyyi na mu ne dagg yi muy dagg àll yi tungal ci géej maarifatu billaahi mu ne nit sàkku ku nit xamoon daf koy sàkku waaye daf koo xamul faqat xasural ak taamu antarctique uya mbooleem xut buy lott nañ ci jot sama lef ne ne ko foo jëlee mu ne bi fadli ilaahi naasi ci baaxu borom mbindee fii mooy yàlla ak lan wa xubbi ak sama bëggeel ci yonantu sallallahu alayhi wa sallam fi nga xam ne mooy taaha mooy sama yonant li yonantu waxoon ne al mar'u ma'a man ahab mbóot boobu dafa roogaat ci Cheikh Ibrahim radiallahu anhu ni ki nga xamee ne mbóotu yonant dafa roogaat ci euh, dëkk mbóotu Medinal Munawwara dafa roogaat ci Medina Kawlax bii nii ñu nekk ndax bàyyi moo ne sara sirruhu fi euh, sara laha sirru madinati nabi xabasaha tafi bila tarayn bi mune mbotu mbootu yonent sa Medina Munawara rogaan na ñëw ci sama dëkk bi comme nag ku bëgg yonent yaag yonent yene dëkk te ku dëkk ak yonent taxe nga bàyyi ne yaminan inna nii laa yuhibbu nii siwa asadin wal aksu fil hali boxdiya او حلفت يمينا انني لا يحبني سوى اسعد siwa في الحال بغيا من lxaali boxdiya mu ne waaye bu waxee rek ñi gëm soxlawul muy waat bu waatee dafay feddali dëgg wax ci lu muy waat mu ne ki gën a texe moo ma bëgg ki gën a texe ati moo ma bañ waqad alima al aqwaamu annii xadimuhu fa waslu xabibillahi yulfa bi wasliha mu ne gaañi xam nañ gaañi su ko nit yàlla waxee mooy seen moromi nit yàlla yi نخاتي بن وقال قوم موي نيغا خامني دانيو ميتريزي نحو فقهاء بن وقال قوم موي لي نيون فقهاء لا ني واخ اهل الله بن وقال قوم موي نيون نيت يالا يي كون باي نين نيت يالا ييب خامن ني موم باي موي بك نيك يونس صلى الله عليه وسلم فوصل حبيب الله يوفى بوصليا jokk ci yonantu bi sallallahu alayhi wa bàyyi mu ne def na fekk ko ci jokk ci moom bàyyi boo jokkee ci moom mu jokkale la ci yonantu bi sallallahu alayhi wa te arab dafay wax ne man ittasala bil muttasili muttasil mm-hmm. boo jokkoo ci ku jokk da jokk bëggeel googu nag mooy waral bu weeru feeñee mu ndokkeel boppam ne xëni ëlli ibrahima laa xaji laa ndokkeel boppam ne weeram feeñ na weeram mooy weeri yonent bi sallallahu di dundale ci weer wi di ci am ay gan yu jugee ci barab yu fasan ci ko am na ci ñu bëri ñoo xam ne mën nañoo ñëw ba dellu lépp lu ñuy wax duñ ko dégg bu dee olof la duñ ko dégg bu arab la duñ ko dégg ci seeni nopp waaye seen xol dafay dégg loolu nag mbóot la moo xam ne yàlla moo ko defal Cheikh ndax kuy dem ci barab boo xam ne lañ fay wax xamoo ko en général mm-hmm. doo sawar di fay dem waaye buñ la gàmmu bàyyi rek ñëw tënk yi métti na métti mm-hmm. gii nag di dëkk boo xam ne ci Sénégal la bokk nekkul Mauritanie nekkul Nigéria nekkul Ghana nekkul feneen li nga xam ne yeneen barab yi ñu ngi koy am ci seeni événement ñi ngi ñaan président de la république par passage moom it muy jagleel Médina li nga xam ne mi ngi jagleel ñu koy jagleel euh, yeneen nawle yi ndax euh, kuy defal yàlla waruloo am xaaj ak seen te ñi nga xam ne ay nit yàlla lañ ñoom seen biir ñoo xamante ku bokkul ci ñoom mënoo leen a jugé ba xam kan moo raw wala kan moo rawut waaye buñ demoon sax ba àgg ci loolu moom tamit nañ xam ne bàyyi moo wax ne wa minhu ataanil ilmu wal faydu wal huda wa qad fuqtu fil alfaani man kaana yaarif ci yonentu laa jëlee moom laa jëlee moom laa jëlee faydu bii ba kuy xam ma gën laa xam kon kooku xam na guddi yi ñu nekk nag guddi barke la guddi nangu ñaar la waaye sàkk na ci ñun ñu bëri lu ñuy julli ci yonent sallallahu alayhi sàkk na ci ñun ñu bëri lu ñuy waxtaanee yonent sallallahu alayhi na ci ñun ñu ñuy dundalee ci yonent bi sallallahu alayhi wa ndax njëriñ li dellu ci yonent bi sallallahu alayhi waaye ci ñun lay ñëwaat beneen yoon ndax dafay wax toujours ne miskin buy sarax kuy may ku am mayit ko waaye daf koy ñaan ñu bu ñuy tagg yonent bi wala ñuy dundale ci moom wala ñuy julli ci moom duut loo xam ne moom daf ciy bénéficié wu ndax moom lépp luñ koy defal rek ci lu demee noonu yàlla defal na ko ndax yàlla njëkk a wax ne moom yàlla ak malaakaam yi ñu ngi julli ñu ngi sax di julli ci yonent bi kon bu jullee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam koy ñaan waaye may ñu ko daal barhamu baun waraun alifun thumma haa